salaamaaleykum adduna wërngal këpp mbokk yi seetaan tegtal tey laaj émission tegtal namm ko émission sëriñ si sëriñ su baax si sëriñ su am qualité si sëriñ si nga xam na que dañ koy teg ci yoon sëriñ si nga xam na que njëriñ rek lañ soxla ci ñoom yéen ñi seetaan tegtal abonné leen tegtal TV bu baax a baax bësal fu rouge bi tegtal TV ak tegtal TV Sénégal T E K T A L espace TV T E K T A L def TV pare def espace Sénégal. abonné leen te continuer xam ne émission yi mi ngi ñëw ñoo ngi enregistré ñu ngi leen ko indi li tax indiwuñ ko nag lenn la corona bee fattoon nit ñi aéroport yi tëj te ñu ñuy gën a seetaan ñi ngi bitim réew léegi bu buñ jëlee émission yi teg ko sëriñ si am na ñoo xam am nañ application yu mën a envoyé sëriñ xaalis mais buñ envoyé sëriñ xaalis pare dañ koy topp ci seen garab seeni ñaan nun ciy jote léegi loolu day am ay euh, rëq-rëq yu am ci diggante bi mu mel ne sëriñ bi daf koo téyan te fekk demeewul noonu te yooyu yëpp day wàccaat suñu kaw moo waral ñu bloqué émission yi nii mais incha allah euh, léegi mu ubbi mais bu ubbee tamit semaine boobu day rythme tabaski la lu toll ci tabaski bi rek ngeen jotaan émission tegtal normal ñu indil leen sëriñ su yoon mësul gis sëriñ su bees tàq sëriñ su yor njariñ duggal leen àll bi indil leen lu doon ak tamit ñu am qualité lii rek la woon ngeen comprendre ñu te xam ne tegtal TV émission yaa ngi ñëw moo waroon indi leen parole de Cheikh Talif yëpp pur ngeen di seetaan mais émission tegtal sëriñ su am solo si suy wax njëriñ kuy faju ku am rab kun liggéey ku mënul am liggéey kun yàq ku amul borom kër ku am ku mënul am doom yooyu yëpp ko jël émission tegtal ñu ngi leen ko indil ak Cheikh Talif tegtal émission tegtal sur Tektal TV ak Cheikh Talif léegi rek ngeen jotaat seen émission bu soobee